asalaamaaleykum waa Leuz TV asalaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen a ko safoo di ko seetaan ñun un fi lenn lu dul rek di leen bégal fas yéene fépp fu aar nekk rek képp kuy def culture Sénégal ñu dugg fa jël fa la fa nekk tegal leen ko ngeen seetaan ko bég man la seen xarit seen soppe daaro dina ma ne xam naa loolu moom doo jarul sax wax ndax xam ngeen ko maa ngi nii ci théâtre Virgile fii ci pikin na ñu am fi nag ndam bu rëy muy kan Leyti Fall waa Arko Pikine ñu dem ba Milan indil ñu benn coupe bu ngande macha allah muy trophée boo xam ne suñu trophée la ñun comédien yi ñu dugg fi nag war a defanteeg yoom yu baax dañ leen leen ku def lu rëy da ngay am lu rëy comme ñoo bindoon itama tey lañ leen tëggee ñaari boor rek tulli leen ñu ngi fii war a jàkkaarloog ñoom ñoom ñëpp defanteek ñoom lu baax jël leen kenn par kenn ñu wax coupe bi nan la fan la jógee ak lu tax mu ñëw fi ak ban sance la ñu am ba gàddu kub boobu nga xam ni fukki réew ak juróom ñoo ko doon xëccoo ñu gañe ko xanaa xam ngeen topp leen ma maa nga waaw waaw yëg-yëg bi ma ci am daaro mooy euh, trophée bi dafa rëy ci ñëpp muy ci man muy ci yow muy képp koo xam ne da ngay dund aar rek trophée bii foog naa rëy na ci yow trop ba tax na tey ñu koy feete woo ci suñu mbokk artistes yëpp pour ñu ñëw pour ñu feete ko kenn amatul looy ragal ci dem Europe jonganteeg ñoom gañe ñëw trophée bi nag li tax mu neex ma mooy ca bitim réew itali la ma ay nit woowe di ma félicité ma ni lu xew ñu ne moo trophée bi nga xamante ni nii ñoom Leyti Fall ñoo fi ñëwoon joué ko man leen ci la bokk ñu ne ma kon ñëwoon nga Italie man leen seulement nag ñi fi représenté woon waa Italie ci laa bokk waaw ci laa bokk looy ree ben pour man euh, Leyti est un pour man képp ku représenté Sénégal faneen dañ lay wooyee gaynde ci football ci gay ci basket ci faneen donc théâtre aussi noonu la amee gaynde et que mu dem représenté ñu dignement dem jël prix prix boobu pour man bu ñëwee fii man waxuma képp kuy artiste mais képp kuy sénégalais xamal ne Leïty t'a représenté dans un festival et il a gagné le grand prix alors on vient lui dire merci et nous venons lui dire nous vous encourageons. tout d'abord maa ngi gërëm maa ngi am ñu cofeel bu baax si ñi Leuz TV nga xam ne ñooy liggéey temps yi ñuy équipe bu dynamique équipe jeune et équipe boo xam ni macha allah ca kaw ca kanam Leuz Leuz Média ca kaw ca kanam. et Leuz TV. waaw ah, ah, di ngeen am télé bi am télé ah dañu ah, am sa gémmiñ fa ma ko ñaanee rëy macha allah yëg-yëg bi si am mooy kontaan mooy bég naa mooy sama xol sedd na te yaakaar naa sama xol bu seddee xëytu Leyti sedd na bu xëylu Leyti Fall seddee Arcos 14 régions yëpp seen xol sedd na bu ñooñu xeetu képp kuy artiste comédien tey lii sag ndam la kon du Arco Pikine rek moom moo gagné de ah mais c'est du d'une manière général képp kuy wuyoo artiste comédien wala comédienne rek yaa ngi ci biir bëgg nga yaa moom trophée bi loolu moo tax ma am mbégte am kontante ñëw teewal leen si bis bi bokk ñoom bànneex bi di ñaan yàlla yàlla nekk ay bànneexi bànneexi bànneex waaw mbégte encore une fois Daro ma lay nuyu du nuyu aussi waa Leuz TV euh, il est évident que euh, des ndam bu amee je pense que du ndam lu yem te ndam loolu lii ci la bokk parce que bu fekkoon dañ ko gagné sur le plan régional ñu mën a wax bu fekkoon dañ ko gagné sur le plan national pour ñun Sénégal toujours moom moo gagné mais nag bu fekkee dañ ko gagné sur le plan international mu nekk ay comédien bind pièce euh, Mandiaye def la mise en scène la ci nekk personnage principal bi ñu ànd ak waa Arco Pikine dem jusque euh, Italie joué foofu macha allah euh, am ndam lu ñu indi fii je pense que loolu nag victoire Sénégal yëpp la théâtre kat yi mais victoire culture la victoire képp kuy Sénégal la képp kuy compatriote nga parce que tey jii suñu tur jib na foo xamante ni xaj na mën na am ci yeneen domaine la fa daan jibee wala mën na am sax mosu ko jib daal donc temps yi le fait que gars wax ne euh, waa Pikine ñoom ñoo gagné théâtre moom moo gagné je pense que ñun ñi tey jii ñun ñëpp suñu fierté la et c'est avec beaucoup de plaisir la ñuy ñëw fii euh, pour participer si loolu quoi. Euh, li nga xamante ne nag moo ñuy fa dajalee mooy trophée bi nga xamante ni. groupe bu Leyti Fall maanaam Arco ak euh, troupe bu Mandiaye di ta takku liggéey ndam si yàlla ji parce que ku wax takku liggéey ki ngay wax Arco Pikine parce que fi ñu bokk Arco Pikine moo leen boot donc mu mel ni kii Arco Pikine moom moom ndam li donc ñoo organisé loolu la yàlla dogal di ci remercier bu baax a baax a baax Leyti di ci itam remercier di rendre hommage itam Mandiaye ci xalaat boobu le parce que nekk xam na diggante Mandiaye ak euh, ses partenaires en Italie euh, ba tax na bi ñu demee ci compétition boobule jogante ji yóbbu fi spectacle bu ñuy wax opéra lamb ñoom ñëpp dañu man ko ne euh, Sénégal lañ ko war a jox parce que Mandiaye dafa amoon pas-pas ak kóllëre gu mu seqoon nag ñoo ñi nekk Italie et partenaire am yàlla dogal mu génn àdduna y' a pas meilleure façon de lui rendre hommage aujourd'hui que trophée mel ni mel nii booleeg jeu acteurs yi booleeg originalité spectacle bi booleeg euh, originalité mise en scène bi je pense que euh, nii rek la mu mënoon demee tey. ndax am na mbégte boo xam ne nii su may rakkaati rakk ñu génn dem bitim réew comme na ma ko defee woon ba ma demee euh, li ñuy wax théâtre bu mag boobu ca France. mu nekkoon ak tubaab yeeg yooyu tey ñoom ñu dem ñëw indi trophée doonu lu dul mbégte ci man parce que benn ay xale ñu yoo xam ne nii ñun uuf nañ leen mënuñoo boot ñëpp lu ñu ci boot ñoo xam ne nii bañ leen di boot sax yaakaaruñu woon association bi bañ koy sos ca ñu ko sos laa bokk man juróom benn yoo ko sosoon tey mu màgg ba nekk ci gox yëpp gox bu ci dem ba indi ndam rek suñu mbégte lay doon kon guy la goo xam ni ànd naag caram car yi ànd ak xob yi te lépp benn la reen yi nag doy gën a doy waar parce que reen yi bu ñu saful woon kon lii tey du am kon mbir mi ci boppam ci laa bu ma nee ci laa ci boppam boo koy conjugué da ci teg mila nila ñula kon nag ma ngoog. <laughs> waaw Daro fay naa la. ba ñëwee ñu gis la fii tey nga def nii ba mu correct gisuñu la nga def dara lu débordé macha allah ñëw ci bisu Leyti Fall mu dem ba Italie ca Milan indil ñu trophée bu rëy ban yëg-yëg nga am ci trophée bi en tant que ndaw ba pare di artiste waaw euh, bu loolu weesoo maa ngi leen nuyu yéen téléspectateurs yi seetaan di wax ne vraiment kontaan nañu trop trop trop trop ndax ndax Leyti Tall bu defee lii nii euh, monde art la ko defal parce que euh, Sénégal représenté ji woon. parce que comme genre coupe du monde rek mën nañ ne coupe du monde la Leyti Fall indi tey te bu ko indee indilu ko boppam indilu ko waa Arco Pikine artiste comédien yépp la ko indil vraiment kontaan nañ ci trop trop torop parce que li mu def dafa am solo dajale ay xale ànd ak ñoom di leen wax dëgg di leen yedd di leen yar di leen defal lépp compétition jot ñu dem jël trophée bi ñibbisi vraiment kontaan nañu trop kontaan nañu trop kontaan tamit ci yow mi nga xamante ne yaay suñuy jigéen ndaxte xam nga lépp nu mu demee da nga baax rek duñ talal micro mais yow rek taxawoon wax doy na. Euh, premièrement bu ma jàkkaarloog Adra Fall yàlla def ñu yàgg trop muy sama xarit bibo ma tegaat ca jàkkaarloog Daaro muy suñu jigéen euh, vraiment damay gën a kontaan ci sax taxaw di wax. Leyti li mu def ni euh, suñu ndam la ñun artiste comédien yëpp parce que tey jii lii day wane ni sénégalais fu mu dem ci àdduna rek moo fa mën mais nag ba tey lii day wane ni que sénégalais dañ ko war a jox cër ci aar ba muy def. ma taxaw sama xarit. sama ennemi xam naa ni sax du ngeen ni <laughs> lii moom du hasard ci yéen te namoon ngeen suñu jàkkaarloo maak moom Alioune Mbaye nuyu naa ñu ngi lay fay bu baax di nuyu waa Leuz TV mais Leuz TV dama leen a mere. waaw yow mere nga ay garmi mere nga ñu ñu baax mere nga ñu askan wi bëgg. waaw xam a garmi dañ koy mere ku bon dañ koy jéppi moo tax ma mere leen. da nga leen a mere waaw dinaa leen jubóole ndax xam nga Leuz mere ko wóoru. Ah, moo taxit loolu dina ma neex moo tax ma jébaane ko pour ñu jubóole <laughs> waaw dañ ciy kontaan di wax félicitation d'abord Arco Pikine parce que lu dal benn arko ñëpp la tey ndam lii ndamal artistes yëpp la parce que dinañu permettre tey ñun ku ci bëggati dem di jouer ji lii dina la permettre boo déposé ñu may la kon da moo tax ñun ñëpp ñu ñëw teew wane ni sunu ndam la parce que toog rek naan sunu ndam la doy mais dañuy jug en tant que artiste comme ni nga koy faral di waxee dompat ca sot la bok tey sax tey di kaata ba pare di njoos di daw. kon dee na noonu lañ koy defee. <laughs> waa yëg-yëg bi mooy euh, foor na ci ñun. du ma ne sax ci ñun artiste mais ci peuple sénégalais bi laay xam nga xam nga la fait euh, la fait théâtre au Sénégal ñu koy transporter muy dem ba Europe di dem di battre foofu ay artistes yu mag te ñun affaire bi yëgoon nañ ko ñun yëgoon nañ ni ñun artistes yëgoon nañ ni ñoom layti arko Pikin ñi ngi dem Italie am lu ñu fay defi ba nu ñibbiseet danoo ñëw indaaleel nu ndam la nan ko foogee woon noonu la ko yàlla dogalee te yàgg nañ koo def de. xam nga dafa am loo xam ne xëy na dañ ko dul publier wala duñ ko dul wax te télé yi am na ci ñoo xam ne euh, ñun comédiens yi li ñuy def euh, sawaruñ ci dara dara duñ ko wane te duñ ko war di wane ba àdduna sépp di teg seen bët comédiens yi gis nga ni musiciens yi di dem di tojee ji ay Zénith ak ñii di dem di toj ay Hollande ak ñii di dem di toj ay Belgique ak yooyu ñu koy wane di ko def ci net bi noonu la ñu waree ni artiste comédiens yi di génne di dem bitim réew di toji ñëw ñu di ko wane ba Sénégal xam ne artistes yi ñu ngi liggéey fu Tyson yomb làmb ci tey Youssou Ndour yóbbu fa musique bi Laye Tifa dina fa yóbbu théâtre bi dama ko yàggoon gëm man damaa mës a gëm loolu parce que xam naa lu nekk ci moom te daf ko bëgg topp ko Laye Tifa amuloon benn son métier bu ko papaam jàngal dafa na ko fa ñukk ba ko topp théâtre Laye Tifa amul fu mu fanaanul amul lu mu dajul ci théâtre bëgg ko def ko ci xolam mun naa gañe leneen ak leneen leneen leneen xam nga lan moo bon nit ku dul nangu nañ nangu quoi yàlla mooy def lii gis nga 2002 ba tubaab yi ñë ba sénégalais yi yóbbee suñu réew fépp àdduna bi ku ñu xamul noonu xam ñu ren yàllaa ko def ci théâtre jàlle ko ci lay Leyti Fall nañu nangu ñëw ànd ak moom poussé ku ñu dem autorité yi nekk ci kaw ñu dem jàpp ci football bi nañ ñoo jàpp ci théâtre bi loolay dëkk la mu saf kaka ma jëkk xam moom mii moo bokk ci ña demoon Italie moo bokk ci ñi ko répété ñi ko xare ba indi ndam li fii macha allah kon loolu tuutul ndax euh, Assou Ndiaye maa ngi lay fay Daaro. sañse bi rafet na moom laa bëgg nga gis ñu nga tourné ñu gis ko jël ko ba pare jëlal sañse as Ndiaye as tourné tourné ñu jël sañse bi jëlal lii jëlal lii ah ah lii ëpp na ci xale de lii ëpp na ci xale man damaa tiit sa gis ngeen li mu sañse ci xale macha allah ñu lay laajee ban yëg-yëg nga am ci trophée bi nga xam ni dangaa bokk ci ñi dem yaag sa président ngeen gàddu ko andil ñu ko ban coono ngeen ci daj. waa Daaro loolu boo ma ci laajee dinaa la ci sawar a tontu. parce que loolu lu metti la parce que répétition yi metti woon na doon nañ ko xare amoon na ay lu ne xam nga ku nekk nit ñi naan dañuy rey seen bopp ñu nit ñu gëmm rek continuer def li ñuy def dem def fulla ak fayda dem bokk ko ak suñu mene suñu yeneen i nawle mais terewul dañoo def suñu jom xam ni Sénégal lañ jógee bëgg indi ndam li Sénégal ñu rey suñu bopp mu jaraloon ñu lu ne doon bàyyi suñu kër duñu lekk duñu naan ndax lii lañ ci jublu woon daal waa dem indi trophée bi indi ko Sénégal fii boole ko ak artistes yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal yëpp ñu bokk ko parce que ñun ñëpp benn lañ yéen demoon ñaata nit ngeen woon. matoon nañ 20. Euh, waaw matoon nañ 20 ngeen am fa ñaata jours. defoon nañ fa 21 jours. waaw macha allah répétition bi ba diiran la amoon. yii répétition bi metti na woon parce que presque répété nañ ko lu mat 6 mois xaw ma 4 mois. yëf yi koy gëm rek suñu borom jàppale la ci kon nag yaakaar naa ne képp ku ci dugal sa loxo. te nga gëm ko rek xam ne lii nga war a def parce que itam jaamu yàlla bu rëy ngi ci am na ñu ko xam nag am na ñu ko xamul waaye ki nga xam ne addinaam yëpp daf ko def pour di bégal doomu aadama yi ak di joxe éducation bu baax kooku fa bu budde bu góorgóorlu tuuti suñu borom dana ko defal ndam Euh, trophée bi daf ñu war a gën a ñaax war a gën a dollu ñu gën liggéeyaat bu baax a baax ñu gëmaat suñu bopp gëm ne aar bi ñuy def nii ku nekk mën na ci tekk ku nekk mën nga ci am loo bëgg ci àdduna ndax balaa nga xam dëgg boo demee ba tukki bay jouer ay Italie ay Hollande ay fu ne da ngay gis bu Sénégalais di jouer tubaab bi dañuy am benn attention boo xamante ni doo ko sax xam dañuy wax chaque fois yéen foo leen jàngee théâtre yéen ban école ñun metteur en scène bi ñuy liggéeyal nii ça fait deux ans def tournée ak Italie mais bu ñu ko laajee au tax doo liggéey ay ay ay italien dafa ne lu ma sénégalais mën a jox benn tubaab mënu ma ko jox en wolof nañ doon jouer tubaab bi di comprendre di comprendre lu ñu doon wax te xoolal su ay suñu ay gestes nañ koy xamee suñu ay wax suñu dem ba naan suñu seen kàllaam bi ngeen di wax nii daf ñu touché daf ñu frappé. kontaan Fatou Nguette bu dee mi ngi fii kontaan loolu bokkoon nañ ci ñi réaliser. vidéo bi accompagné ndax tey jii xam naa ne li nga xamante ni xolam sedd na mooy ndax dundam yëpp. ci aar rek loo ko def def na vingt ans Italie théâtre rek la liggéey théâtre rek la xam leneen loo ko dugal nax nga ko ba mu des théâtre waa lii la bëggoon nag théâtre émergé dem ca kanam ci loolu la doon dox ci lay wax ci lay def lépp te lu ko gënoon neex foo ko fekk danaan artiste dafa war a simple la simplicité c'est un art ci la doon dox ci lay wax ci xale yi surtout ci xale yi bëggoon na xale yi nekk ci théâtre développé loolu la doon dox di ko xeex di ko wax looloo taxoon mu bëggoon pont bu jógee bitim réew ñëw Sénégal lépp ngir xale yi jëm ci kanam ah yàlla nag mooy def lu ko neex waaw mais bu sañoon Sénégal day weesu théâtre ci Sénégal day weesu fii mais lii la yàlla dogal waaye sant nañ bu baax a baax léegi da doon ànd ak moom ci ngor ànd di liggéey dëgg yàlla te lii mu def lu rëy la kontaan nañ trop kontaan nañ trop sant di gërëm di fi teew. tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yërëm ko taxare ko àjjana te fi mu jëm gënal ko fi mu jógee.